سيدنا الشيخ مبكر سيدنا مور فاتي خري سيدنا مور فاتي خري الشيخ مسامب ديمبلن كو دنج سي دار الكريم رقم جو باخ جو سيدنا فالو ووتو كو واي الاسلام جيمول سيدنا الشيخ سيدنا مور فاتي خري سينغال ييبكو ايسا غاين فاتي خري بايام لب لو كو وار سي ريومي سي الاسلام بي اك ديني جي داف نكو شيخ مسامبا كو جور واي سيدنا بامبا يار موتاخ ديمبو واخنا ني mbakk yu fay ak maître Madické Niang ak moom mi toog ak ñu mel ne moom ñàkk nañu kon nag tey dalal nga koo xam ne kii loo bëgg a laaj ci xasida yi bu noppaloo ba mu dal loo ko laaj sëriñ bi dana ci dugg ak yow dëgg la mu doon lu am solo xam naa damay dem rek euh, delloo sama euh, euh, kàddu gi suñu papa laata ñuy ñëwaat ci moom parce que tey moom spécial akasa samb la ñu wax donc loolu rek wane na boppam donc papa ma jox la kàddu gi yow itamit nee na jërëjëf may nuyu ñu bi di ziar euh, kilifa diine yi xalif généro yi jaarale ko ci Serigne Mountakha Bachir xalif général de Mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér bu ma ko tuddee rek euh, tudd naa mboolem xalif généraux yi nekk ci biir réew mi di am mbégte lool itam ci ñi ñuy bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew tey teewlu bu baax euh, Grand Plateau man foofu laa yem ci nuyo bi xanaa damay ñëw rek euh, ci laaj bi nga xam ne moom laa bëgg a njëkk laaj euh, akasa muy jotaay boo xam ne nii rek euh, moom lañu ko woowee la mu njëkk a def xasida gi mu njëkk a yëkkati mooy am di wa sukri wala saana ilaahi ma bëggoon ko laaj moom akasa lu tax jotaay bu mu dem rek xasida boobu lay ubbee Euh, gannaaw loolu itam ma damay boole ñaari laaj rek ndax tey moom moom moom moom mooy yore jotaay bi mhm. beneen laaj bi mooy euh, Sarsara Sarsara dafa bokk ci histoire yoonu murit mu bëggoon a xam tey lan la Serigne Touba Cheikhul Khadim uti woon Sarsara ak lan la jëlee Sarsara bi muy jógee euh, gànnaar jërëjëf. sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax. di la gën a gën di la gën a feddali taalube gi ak wéjur wi ak wala réew di am mbégte ci laaj bu tedd bii nga ma laaj nga xamante ni sama pas-pas la sama ngëm-ngëm la <coughs> bu sori si man sunu kilifa yu nu jiitu woon daan jàng xasaayid yi ku mel ni sëñ Moustapha Sy sëñ Mbacke Jaxate sëriñ Mayib Gueye sëñ Madley lay Njaareem ah ak sëñ Moustapha Kebe ak sëñ Omar Diouf ak ñooñu sëñ Ndongo Thiam ñooñu ñëpp ak sëñ Mountakha Gueye suñu kilifa yooyu dama daan gis ci ñoom ñu dogu pas-pas bu rëy ci xasaayit yi féetewoo génn xasida muy seen xasaayit danan jàng yépp nag waaye man bi ma jógee rek ni leen dand dama jël sana ilahi, ak xasida gi nga may laaj hamdu wa shukri ak sarsaara googu ngay laaj def len ñuy sama xasida yo xamanteni ñoy sama gàllaaj ñoy sama andando ñoy sama caq yo xamanteni bu ma waajoon bay walli ñom lay tak ñom la ubbe ni bi ci njëkk muy ilahi def ci ñaan boromam juromi way la waaye sëñ tubaa def ci ñaan boromam niko ku ko jàng nang ma ko fayal yool bi ngay fay ñi nga xamante ni ñoo xare woon lislaam xare yépp nag xare yépp xare lislaam yépp li nga leen ci fay ku jàng xasaay di nanga ko fay yool bu toll noonu te nga jéggal ko bis te mbugal ko ci musal ko ci mbugalu bàmmeel te man damay nekk damaa nekk nit ku ragal bàmmeel nekk nit ku ragal sukuraat ba may xale nag ba léegi nii ndax dama daan jënd perkaal piis di ko denc ba at ma jeex su ma faatuwul ma ñëw ko sol jënd beneen denc ko ba ba beneen màkka laa ko soppi wutale kook sama armal yi yore ko ba léegi fi ñu toll nii ba fi ma toog di wax ak yow miir du ma romb te dee nekkul ci sama kanam xalaatuma ko xalaat bis mooy wàcc ci sama lal fanaani ci armeer yi xasida googu nag sëñ Tuubaa ñaan ci fay googu ak yërmande yàlla yooyu nga xamante ni fu nu jëm dara dafa doy ma def ko sama ngànnaay fu may ubbee jàng yu ma mosu ubbee ci àdduna bi muy biir réew mi ak biti réew saana ilaahi googu laay jàng ngir sàkku ngërëmal yàlla ak njëggalam ci bis boobu nga xamante ni danaa tudd ci sama lal sama dernier jour xam ne tey bis bi wàcc la dem ci barab yi te lu ma gëm la moo tax na xasaayi boobu ma koy ubbee def ko sama xasida ngir sàkku ci yiwu yàlla ak ngërëmal sunu borom subhanahu wa taala xasida gi ca des xamdi wa sukuri la tudd xamdi wa sukuri sëñ Tuubaa moo ko taalif ma ko taalifee gànnaar ci dëkk ba ñuy wax Sarsaara bi ma koy taalif dafa fekk mag ñi kenn ku ci nekk dogu di ko fekk foofu gànnaar te gànnaar la ko fi yóbbu woon xëy na tubaab bi yóbbu nañ ko mu dem Gabon ba ñu indi ko amuñu ci ndam li ñu bëggoon lépp amuñu ko ci moom ñu daal ni léegi nag gannaaw nit ku ñuul dafa am complex ci nit ku weex nañu jël sëriñ bi ñu yóbbu ko gànnaar ci nit ñu weex ñi nga xamante ni ay naari gàlla gànnaar lañ su demee dana fa am complex ci seen kaw bu ko defee ñu mën koo noot te taalibe yi duñu am possibilité pour mën ko faa fekk waaye paas taalibe yi dogu dem di ko fekk takk seen digg rek di ko fekk waaye sëñ Tuubaa it boobu ci njàmbaaram ak pas-pasam ak fonk nit moo tax mu digle ku ñuy wax euh, sëñ sëñ sëñ Modou Dagana daal dina ko nanga toog fii Dagana képp koo xamante ni joxuma ko ndigal pour mu ñëw gànnaar mënoo fekk bu la kenn romb te joxuma ko ndigal ngir mu fekk ma gànnaar sëñ Modou Lo Dagana moo tax mu Moussa Kanaan moo taxoon mu toog fa te ak yaayu Mbodj <coughs> sëñ Modou Lo Dagana sëñ Touba ku mu jox ndigal nga fekk ko fa waaye murid yi am pas-pas du ko fekk booba murid yi dañuy dox ak ay tànku neen di yanu ay ndab di yanu ay addiya du ko fekk foofu sëñ Touba nag bind fa xasida googu ngir ñaanal leen ci ñoom ña ko fa fekk yàlla defal leen njëgalu àdduna ak alaaxira tàqale leen ak bàkkaari àdduna ak bàkkaari alaaxira moo tax mu ne inna lasina ilaa sar saara xat xasadu ziarati faraxo daa leen aw saara ñaanal leen ko loolu la leen fa ñaanal gànnaar it la fa sëñ Tuubaa jële mooy ndimbalul yàlla ma nga fa jële maqus min allah bi wasitati rasulillah la mu fa jële xam nga dégg lim la wax ni sarsaara mag ñi dañ boo dégg ñu mag ñi dañ daa jéggi jukk jukk mooy dex gi fekk sëriñ bi xumaag parce que sëriñ bi bi mu nekkee foofu lépp lu ko waroon rek def na ko waaye mag ñi ku fa mas a ñëw nag am nga am euh, siyaare ko sartaara boo ñibbee daañu xam ne demoon nga fa yëggaleel macha allah werd wi nuy werd ci yoonu murit muy maqus min allaahi fa la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam feeñoo jox ko ko yeddin bi yeddin loxoom ak loxoom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jox ko ko suusal bu toll noonu ak ndimbalul yàlla lu toll noonu lafa fa jëlee indil ko. am na solo lool xam naa Cheikh dañ koy wax rek mu mayaat ñu mu baaxewaat ñu beneen. Euh, xasida beneen xasida waaw hmm? waaye balaa boobu rek ñu fàttali euh, téléspectateurs yi wara ñi nga xam ne dañu bëgg. am ay zikaru ak sa wala boo gin nag ay xeeti euh, xasidaam njàngam uh-huh. man ngeen dugg ci plateforme bi nga xam ne moom moo di Kati 360 euh, uh-huh. su ngeen duggee ci plateforme boobu di ngeen mën a jënd ay woyi asaka ak sa sàmb ak yeneen sax xasida et puis euh, li gën a am solo ci plateforme boobu moom boo ko jëndee qualité son bi uh-huh. muy gën a set te mooy gën a neex di waxaat nag téléspectateurs yi ñoom it nañu dugg jël ci addiyee ji ci 88 628

ngi ziar ñëpp ñi ci plateau bi sax di di bu baax sama yaakaar tey ak ëllëg maam Thierno Birahim waaye dafa wax lu am solo léegi mhm. euh, xasida yi nandu buur la ko tëggal baadoo la mhm. Mhm. buur la dee su ko tëggal baadoo la ku fi sa xol féex rek ne la ni yow nitu àjjana nga moo ko ñaan boroomam wajjaxal ami matata xanaa bi al xurur xiinu wal wildaanu fil jannati lati wuxidal mu taxuna boo xoolee tarjumaan yu bari sëriñ bi noonu la koy tàmbalee dafa wax yow yàlla defar orphelins yi orphelins les enfants du paradis ak jigéenu àjjana yi ñuy woyantoo sama xasaayit yi moo tax ku ci sa xol sedd rek na la bir ni yow nitu àjjana nga bisimilah sëñ Akasa am na solo macha allah wajjahtu kulliya wa shukur ila walil muminina wa shukur wajjahtu kulliya بحمد وشكور إلى ولي المؤمن وشكور كن يا ولي يا خدير يا نزير للمؤمنين إنك الهادي البزير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا زمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سمن نفهمتنا بفضل إيماني فلتنفعل جميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام فلتنفصل عن المرام خدمنا سيد البرايا احمد والأنبياء ورسلي يا من حمدا خد صلاة وسلام أبدا لهم كن أخسيته من لم يمدا يا نبي خد صلاة وسلام والأنبياء ورسلي من سنة كلام على النبي محمد وعلى آله صل وسلم wastajib su'aali lil muntaxaa lil muntaxaa lil muntaxaa lil muntaxaa lil muntaxaa